exploité foofu am beneen domaine bu ñu waroon a exploité waat pour def benn extension voilà que la société Nouvelle Ville ñoom ñu ne dans le cadre du programme des cent mille logements que ñoom dañ leen attribué foofu il est vrai que nee na sous le régime de Wade dañ leen yoroon ay terres mais terres yooyu ñu leen jox foofu terres yi moom dañ ko ne dans le département de Mbour commune de Diass mhm. waaw ñoom ñu wax la yow léegi nga ñëw nga ne ñëw fañ la jox léegi mi ngi dans le dans la zone de Kër Moussa alors la zone de Kër Moussa. Hmm. mais ça se trouve dans le département de Thiès. donc géographiquement yow même décret yi sax chaque fois da lay indiqué ne fañ la jox c' dans le département de Mbour commune de Diass yow nga bàyyi département de Mbour commune de Diass nga ñëw léegi ne da ngay installé wu dans la commune de Kër Moussa département de Thiès. Hmm. maintenant les gens là qu' est chaque fois lu ñuy wax ils brandissent benn acte judiciaire leen dëgg ci loolu mais tribunal amul compétence juger une action qui doit être jugée par le tribunal de Thiès. amul. Mhm. cest loo xam ne tribunal de Thiès moo ko jugé tribunal de Mbour bu koy jugé c'est-à-dire c'est nul et non avenu. Mhm. et c'est la raison pour laquelle il y une demande de rétractation qui a été introduite au niveau de la cour d'appel te waa cour d'appel war nañ ci statuer. Mhm. waaw loolu lépp amagul. voilà que maintenant waa société de Nouvelle Ville ne ñoom dañoo bëgg a forcer foofu forcément danañ fa ñëw te li ci gën a grave mooy zone boobu ñu ne ñoom dañ fay tabax kenn mënu faa tabax. Hmm? il est écrit noir sur blanc que c'est une zone non aedificandi le terrain est argileux foofu bu nawet jotee xoolal ndox mi foofu lay jaar pour dem dans la lagune de Somone hmm. comment ça veut dire que maintenant foofu ñu bëgg a gëmloo nit ñi dañ fa bëgg a ñëw tabax foofu ku fay tabax non ne faut pas comprendre le Sénégal pour de demeurer xam nga gën a bon mooy tooñ baaxul et je crois que gouvernement bi loolu war nañ ko régler loolu war nañu ko régler parce que c'est un problème boo xamante nii buñ ko bàyyi muy law dina fa mën a indi ay musiba parce que dernièrement amoon na ay xeex bañ jam fa nit donc je que loolu problème boo xam ne nañ ko régler c'est-à-dire la société nouvelle ville foofu lañ fay def ñoom dañuy tooñ mm-hmm. dañuy tooñ donc ñoom nañ leen wutal fu ñu leen jox bu ñu leen yoree du leen ko yorlee nañ fu ñu leen jox ou bien on a qu'à changer les les, les papiers décret ñu wax leen fi ñu war a mën jox mais suñu la waxee ne c'est dans le de département de de Diass ñoom foofu ñu bëgg a du département de Mbour du commune de Diass c'est dans le département de Thiès commune de Kër Moussa loolu moom il faut que ça soit vraiment clair une bonne fois pour toutes. am na solo euh, moo tax euh, comme que maa ngi ci cëppaandaw gi ñaari ñaari question ci internet yi ah, jox la ko rek pour euh, xam nga faire leen plaisir ndaxte ñoom te ci mhm. émission bi la ñu bokk. kii moom suggestion la nee na mhm. Serigne Saliou bëgg naa nga wax ci. Mhm. Ah, coow li nekk ci nee na après nga defal ko ci gëstu xam naa ne loolu dina la ko defal ba jox la ko ci yoor yor incha allah bu ci amee parce que moom lu muy wax rek day ànd ak preuve mooy école privée yi ci wàllu santé. bëri na coow luñ ciy wax nag donc nee na moom bu sañoon daal. après nga non loolu moom je te dina ci ñëw. waaw yow mi wax ah. loolu nee na dina ci ñëw incha allah kii neena ma ah, ah, ah tonton Serigne Saliou. nu mu gisee chinois yi dóor benn sénégalais bi doon laaj salaire am. ndax d'accord na ci ak itam philosophie Tahirou Sarr. non nii la ma ko wax en fait moi je suis pas d'accord de violence. xam foofu xool jiw muy chinois. muy sénégalais parce que am na si sénégalais bu ñu jàpp. Mm-hmm. donc muy chinois muy sénégal ku a nekk c'est-à-dire que nit kenn waru ko gundu xatal ci loo xam ay droit am la. Mm-hmm. moom mm-hmm. taxaw ne mu ne fiche de paie bi saa du ko signé mais nañ ko bàyyi. mais lan moo tax ñu bu ko contraindre forcément ne da nga da nga au point même de le violenter. ci ci ci noonu. xool bi sax rafetul. donc foofu moom na justice def liggéeyam on les a placés sous mandat de je crois le 26 la ñu leen en appliquant la loi dans toute sa rigueur parce que sénégalais bu def dem Chine def fa lii boo deful ndànk di nga dee ci kaso bi. Mhm. waaw donc Sénégal aussi je crois il faut nañu appliquer la loi waxuma ne parce que ce sont des chinois man c'est-à-dire euh, la nationalité ne m'intéresse pas li ma intéresse mooy la personne en tant def nañ ko lu ñu ko warul def ñaka nga def nañ leen jël ñu teg leen ci yoon. Mhm. maintenant Tahirou Sarr li muy wax je crois que souvent son discours dañ koy biaisé. Mm-hmm. parce que Seydou Seydou Sarr moom boo gisee il prône un nationalisme waa Pastef ñoom dañuy c'est des par euh, le moom li mu li mu wax Seydou dafa am loo xam ne nii bala nga ko jox étranger nga jox ko Sénégalais yi. Mm-hmm. les gens y perçoivent maintenant des actes de xénophobie ñeneen ñi peut-être ne dafa raciste et ça ils n'aiment pas les étrangers. Mm-hmm. mais boo xoolee le fond de son discours cest à en réalité lu muy wax lu ci bëri nag c'est des choses quand même qui acceptables. parce que mënoo étranger yi ëpp la fa quand même ay avantages. Mhm. mënu nekk loolu de moom nit ku nekk sa dëkk tey boo xoolee France la fa xew avec la poussée de l' extrême te sous-peuple gis nga bu ñu demee ba nekk majorité à l' assemblée nationale il y a des mesures fortes qui vont être prises et ce contre l' des étrangers. Mhm. moi je crois que pays bu nekk da nga war a njëkk a sàmm aussi yow li ñaan Africa first Sénégal first wala li Trump da doon USA first. Sénégal d' abord. Sénégal d' abord Sénégal mhm. d' boobu nag dafa bokk ci acte de pas parce que noon n'aime pas les étrangers mais ñi nga xam ne ñoo juddoo ci réew mi ñoo fi war gën a mën a ëpp avantage ñi nga xam ñoo juddul ci réew mi hmm. loolu moom je crois kenn mënu ko bañ Sénégal bu demoon tey France français la ñu war gën a mën a privilégier que ne pas au détriment de de droits fondamentaux hmm. mais dafa am loo xam ne ni dafa yellool ñi nga xam ñoom ñoo juddoo foofu ba pare dëkk ci dëkk ba hmm. fii aussi je crois que on doit faire la même chose mais Sénégal en tout cas que que que que que les, que les nationaux. Mm-hmm. loolu nag il appartient aux nouvelles autorités bon ñu xoolaat comment redéfinir la politique migratoire du pays ba sénégalais yi nga xamante ne wax dëgg yàlla ñi ñëw ci réew mi ku ci nekk la nga yelloon ñu jox la ko en respectant tes droits mais ñi nga aussi ñi dëkk ci réew mi aussi li ñu war a am ñu am ko aussi en respectant bien sûr leurs droits. ki nee na moom question bi c'est simple. Mm-hmm. ndax jàpp nga ne euh, Adji Sarr. Mm-hmm. Euh, affaire am procès am dossier dañ ko war a tegaat ci table bi ngir lépp leer vu ñu fi faatu ñu. waaw moi je crois que Adji Sarr en tant que tel warul nekk une préoccupation majeure de des actuels gouvernants fi ñu toll nii y a des dossiers qui sont prioritaires léegi nag li nga xamante ne moo war a ci enquêtes yi. ci ñi nga xam ñoo dee. bu waree seen nag jusqu'à l'implication de Adji Sarr su boobaa Adji Sarr fu mu nekk nañ lancer mandat d'arrêt indi ko fii ci dëkk bi. mais je sais ne la mu doon tuumaal Ousmane Sonko Ousmane Sonko ma wax na ko. Mhm. moom lu ko nit defal def baal na la ko. je sais ne bu dee la mu ko la mu ko la ko sosal yëpp bu dee Ousmane Sonko Ousmane Sonko xam naa ne loolu mën na ko baal. Mhm. mais li nga xamante ne nag moo indi bakkan yi ci wàll yëpp loolu si une enquête rigoureuse wane na ne il y a en tout cas de façon directe ou indirecte la responsabilité de Adji Sarr. fu mu nekk ñu lancé mandat d'arrêt international ñu dem jëli ko ñëw jugé ko devant les tribunaux. Mhm. loolu moo mooy li nga xam mooy li war. waaw jërëjëf Serigne Saliou Gueye. merci Djibi. waaw di sonalatina la di di di jégalu internet yi nag parce que xam naa ne war ngeen a percevoir ne sama baat bi moom. soj maa ngi ciy feeñ bu baax a baax. Zaza mu ngi lay jëlal fii part de nee na ma joxoo sax César café mu. waaw gis nga de waaw moo de tey tey moom Djibi moom joxuma café ah, moom. nga waxloo ko ba mu sonn <laughs> nii. mais di jégalu rek nag ci baat bi vraiment xaw a sooxee grippe bi moom moo jàppoon fan yi <laughs> mais maa ngi sant yàlla quoi vraiment di am mbégte et aussi di leen souhaiter vraiment yéen ñëpp une très bonne fête de tabaski waaw yal na yàlla yombal mbir yi yàlla waaw wax nga dëgg waaw vraiment oyofal vraiment poche yi fees comme ni ko kii di waxee euh, sama grand Bokar Camara foo poche yi fees yàlla na poche yi fees ba pare xar yi aussi ay xéwal am ci te sénégalais aussi ma leen wax ne il ne faut pas aller au-delà de vos moyens président Diomaye gis ngeen ko xaru cent cinquante mille la jënd te defu ko parce que populisme la de bu ngeen demoon këram tey xar ya mu jënd moom lañ fay rey donc la mu def keroog jàpp naa li ci gën a am solo mooy communication bi mu jàllale pour wax leen ne ku nekk la nga am. Mhm. dafa loola. Mhm. mën nañu wax ne sax moom am na lépp loolu mais moom en tant que président il a préféré xarum 150000 moom day na ko pour ñaari soxna am jën na ci ñaar yemale na ko foofu. ñun aussi la nga xam ne moom lañu am bañ a yàq bañ def ngistal nañ yem fi nga xam ne moom la sunu poos yem. je crois que message boobu bu ngeen ko comprendre rek tabaski gi mën na nekk tabaski gu neex et puis di vraiment di leen souhaiter yéen ñëpp. lay nekk sax incha allah waaw mu ngoog. incha allah waaw di leen souhaiter yéen ñëpp daal. Ah. une très très très bonne fête de tabaski te yàlla nañ ko. julli ay déwén yu bare bare bare bare. amiin waay amin waay euh, gars yi xanaa di nga leen jox seen déwén. incha naa leen jeudi lay nekk. dinaa dinaa leen ko jox dinaa leen ko jox. <laughs> déwénal bi mais ñoom aussi ñoom aussi maa ngi xaar seen déwénal mais man moom sama bos ko Serigne Saliou. non naa leen jox déwénal amul benn ah, a na nga ko jox. déwénal waaw Serigne Saliou sa foo nekk ma indi la xar na ku ma gis léegi mu bind ko waaye Zaza moom bàyyi ko foofu mu may tooñ naan ma ah del joxe café ak ndox. non non Zaza moom tu as Zaza xarit nga jibi moom tey daf ma tey moom daf ma daf ma ko def joxuma ndox joxuma café waaw <laughs> tey tey damaa denc ndox may café gi dama xam ne su ma ko joxee tey jii nii damaa bëggoon gën a nekk en waaw gis nga de moo tax mais en tout cas yéen ñëpp maa ngi leen nuyu Fatou Fa Mbodj ah Ndeye Ramata mm. Camara Alexis euh, Sono donc euh, Bara Diop Sonko euh, Zaza ñoom Max Ar Label nday Sène suma yaay yi Mm, surtout nag euh, soxna Touré madame Thioub depuis Espagne maa ngi lay ziara nee na léegi moom abonné na këram kenn du fa liir leneen lu dul yor yor waaw yor yor la mooy kii bu baax bi de <laughs> journal bu baax bi am na rédacteur en chef am na équipe am na ay journalistes yu nekk ci terrain bi am na directeur publication am na siège am na lépp ba pare am ay correspondant am na ay correspondant xam nga loolu yombul waaye du def moom à la une rek téye ko fa rek ci une bi rek def ay kii électronique non moom boobu mooy bu baax bi lu ngeen fa lii rek xam leen ne dëgg la donc mooy sunu journal ngeen dem ngeen ngeen ngeen ngeen abonné yéen ñëpp ah ki nee na yor yor TV moom la bëgg <laughs> gars daal yéen man man dama leen bëgg ah yéen ñëpp maa ngi leen di jaajëfal ah su ma yaay ji ca Bordeaux tamit ah eh, Dieynaba Wane maa ngi lay ziar bu baax a baax a baax question 3FPT bi directeur 3FPT laa lay indil hmm. yow mi koy posé nii ah pour su ko defee maa ngi moom ñu def émission parce que moom tamit rebond bi ah kàngam la ci te looloy looloy domaine am moom laay teg pour waxtaan waxtaan ak moom ci wàllu xëyu ndaw ñeeg ah financement yi ci jeunes yi femmes yeeg ah, di di docteur Babo Amadou Ba bu passé mm-hmm, donc maa ngi koy souhaiter bon succès pour la suite ci ñoom lañ ko jox xam naa ne promettre nañu waaye tabaski bee tax xam naa ni mu xatee euh, moo tax du mën a ñëw avant tabaski mais après incha allah su yàlla defee li muy def euh, jàmm ak salaam ah dinañu ko dalal ngir waxtaan ak moom ci question yu technique yooyu jëm ci wàllu koom en kilifa Cheikh sa xar yi dafa cher de moom ak Tayrou Sarr nee nañ sa xar yi dafa cher nga wàññi ko kilifa kilifa nee na moom xaru ay boobu président jomaa jënd moom du ko jaaye lool <laughs> xam kilifa dafa neex kilifa wàññi sa xar yi ah gars yi may laaj fu kilifa nekk kilifa ouest foire la nekk uh, uh, waaw ouest foire la de su ma juumul fii mooy ouest foire xaw ma nord foire daal uh, foire la daal en tout cas foofu la nekk <laughs> ah su ngeen ko su ngeen ñëwee ku ngeen laaj kilifa dina leen ko war moom ak imam Dramé ñoom ay jaaykatu xar lañ ci ci ci tabaski bi donc ah ñoom eh, yéen ñaar bu dee yéen a may dégg Serigne Saliou ngi xaar bosam ak tuuti <laughs> ah ngeen jëf yéen ñu doon suivre ñëpp cant ak ngërëm ñeel na leen ah di leen wax bu leen toxal benn yoon seen seetaan incha allah programme yi day woy xam naa ne ah suba incha allah matinal bi dina ñëw ànd ceeg soxna faatiment Kide ñoom Maas bu ak ah ñoom Mansour Cissé <laughs> ñoom Cheikh Ousmane Touré <laughs> équipe bi ay Ouleymane ak équipe boobu nga xam ne ni ah, ñoom ñoom force la ñuy demee ah, waaye incha allah jombul itam ñoom hmm. ñoom ñoom laal la dinañ fi dalal ay kàngam ngir waxtaanee pétrole beeg gaz bi ci kanam tuuti incha allah si possible bien sûr ah, leneen ci ay programme dinaa leen ko jox géewal dina ñëw ah entre el bonsoir yëpp incha allah su neexee borom bi waaye laata boobee rek may gërëm bu baax a baax suma grand bi hmm. di ko ñaanal yàlla fan wu gudd ak wér yaram parce que c'est un grand très disponible ah serviable surtout mm-hmm. ah, man dama ko sonal dama koy tooñ lu ne laa koy wax ah waaw mais vraiment sourire bi rek la may jox ah, mm-hmm. xam naa ne bu ñàngalee nag moom zaza di nga ñëw àtte moom ndax d'habitude kuy reetaan moom bu ñàngalee moom <laughs> donc mu ngi noonu on se donne rendez-vous très prochainement sur Plateau Bon Dieu mais d'ici là